سميتها مواهب الخديم في المرء والدعاء بتكريمي bi nga xam ne moo leen koy wan doon site boo xam ne itam sosoo fii ci tubaa Seexaw gi ànd rek ci liggéeyu Serigne Touba bi waxtu wu nekk bu ñu koy amal saa su nekk euh, tey jii ñu ñëw nag fas yéene wane lenn ci liggéey bi nga xam ne waa mouvement ànd defar Touba ña ngi koy amal te mooy euh, am ndigalul def waañ togg ay añ yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy bale tey jii nag ñu ànd cee ki nga xam ne mooy porte-parole euh, mouvement ànd defar Touba di Serigne Modou Cissé. salaamaaleykum. jërëjëf sëriñ Maguette ñu ngi delloo nuyoo di la ziar di nuyu bu baax tamit waa site bii nii muy Sekhawgui ga TV di leen dalal jàmm ci fii ci Sekhawgui yenn wax ne rek ñoom dañoo bokk ci ñun teyit kenn ku ne xam ne olof mooy wax ne bala ngaa dàq kéwal mu jëm àll dàqal mu dugg ci biir kër gi kon Sekhawgui TV yi ñu ngi leen di ziare di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen wan ne leen fas na yéen ànd ak yéen jàppalante noo ngi rafetlu tamit euh, mouvement bi ni muy doxee ndax kenn ku xam na ne euh, bi mbale mi jubsee lañ am ndigal ñu xamal nu ne kat bëgg nañ yeen barkelu ci mbalé ci mbalé mi ñu ñu bëgg ci taxaw ñaari taxaway bëgg nañu balé bale bëgg nañu togg ay ñam yépp ko ñi xamanteni bi ñom ñoy bale ndax kenn ko xam mouvement bi ñen ñi ñi ngi ci dëkk bi di bale ñen ñi ngi fi di defal berne ngir bokko jox ñi nga ñom ñoy balé bale ñu fassiyene nak diiru mbalé mbale mi benn fan ñaari fan ñett fan ñent fan bu juroomi fan fu mbalé mi tollu rek fassiyene bi du set lu gatt gàtt danañ togg fukki mbana yo xamanteni bi dañ koy def ay berne fekk fa nga xamanteni fa la sëriñ bu nekk jox ko ko mu jox ko ñi nga ñom ñoy balé bo bale engagement la am te mbal mi nag tey la commencé yaangi fi nak ci wañu wi soxna yaangi ni di defar xewali yi yaakaar gis nañ ko filmé nañ ko nit ñi dañ ko gis ta fas nañ ko yene defé ni ko ni nga xamanteni bi ni la ko serigne bëgge muy muy xewal yo xamni yu mucc ayib lay lay doon ñu tek ko ci auto ba ag ba serigne bi jébal ko ko mu sét nu ko sédalé mbolo mi bu suba tamit ñu commencé waaj kon ne ci ba keroog mbale mi jeex loolu lañ fas yéene ma bi nak serigne serigne magat kenn ku na xamna ni mi ni mi doxé serigne bi rek mo na ñëw serigne bi képp lañ ci liggéeyal dara tax ko juk lu liggéeyal serigne bi lépp loo xam ne xam nañ ne yitte la yoo xamante ne bii tey lu bokk sëriñ bi la ci la ñu taxaw jërëjëf sañ Maguette ñu ngi sant bu baax a baax nag di la gërëm jërëjëf mbokk yi kaddu yooyu ngeen doon dégg mu bàyyi ko ci Serigne Modou Cissé mi nga xam ne mooy porte parole mouvement ànd defar Touba ñu ànd ko seen site bi nga xam ne mooy Seexaw gi TV ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Mountakha santaane na ko muy li nga xam ne mooy setal dëkk bi te yaakaar nañ ne bu ñu nee waajal màggalu Touba la ciy jiitu mooy dëkk bi set mbedd yi set leer ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci ànd gi ngeen ànd ñun di ñu teewlu di gërëm bu baax di leen wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh tay ji nak ñu fekk fi présidente bi di soxna Anta signal soxna Anta signal mi nga xamne moy jité jiite ñi nga xamne moy mouvement and défar Touba tay ji mom la bëgg a laaj ba xam taxawayam ak seen yëg-yëg ci bis bi ak ni nga xamne mom moom la ba taxawal waañ wi Anta ñoo ngi lay nuyu ci trou mouvement and défar Touba ñoo ngi leen di nuyu fi ci diwanu Touba Seexaw gi ànd koog seen site bi ñuy wax Seexaw gi TV tay ji ñu déplacer wu ñew set ci wa mouvement and défar Touba ci liggéey bi nga xamee ne moom ña ngi koy amal fii ci diwaanu Touba Saxaw gi ci ndigalu Cheikh Mountakha Mbacké mi nga xamee ne mooy Xaadimul Moustapha. maaleykum wa rahmatulaay gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi di sant Serigne Touba bu baax a baax ndax bis bi moom li ci sama yëg-yëg rek am ci kontaan te mbégte goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax wax dëgg yàlla liggéey sëriñ Touba moom képp ku na la rek. yaa nga ca biir war ngaa santaat yàlla bu baax a baax a baax a tàmbalee ci soxna Mbène Diop mi sama wet soxna Mati Gaye sama naataango sama xarit muy liggéey boo xam ne macha allah am nañ ci tàmbalikaay waaye am na ci yemukaay soxna Mati Sey moom it jàmbaari koñ bi wax dëgg yàlla mboolem mu ma ànd defar Touba jigéen ji nekk soxna Xadi Xadi Ñang ñoom ñëpp wax dëgg yàlla takku nag ànd ak man ci liggéey bi muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon saa yi mën na leen jóg leen amul kenn koo xam ne rek soxlaati nga dara mbaa bëggati nga dara ñu ànd nag ci liggéey Serigne bi nag macha allah ca bañ ci àndee ba nag dara ñaawut dara ñaawut yal na nu yalla gën a na gën dolel dooleel jappalé ba leen bëgg ci yoonu Serigne Touba bi ñu def ko ci katanu yalla ak baaxam ma ngi sant ñepp nak goor ak jigen mag ak ndaw di sant sant sañ jili bey ndax sañ jili bey lepp moma ku ñak ki ñaan ku bax ko xamne ne wax dëgg yalla man na boot ñepp barke Serigne Touba mbaka du mer du diklé yalla na nu jappalé assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi siar ñepp kenn ku nekk ci turum ak santam di wax ci bu ma and defar Touba ma and defar Touba nak don kurel go xamantene ki bañ ci xalaatee fas ci yéene dimbale képp koo xamante ne kii ci lott na ci wet gam nekk ci lam lott lu mu mën a doon rek comme ni nga ko waxee faram-fàcce nga lépp yaakaar naa jërëtul ñu di ci jaaraat ndax wax nga li nga xamante moom la nit di itteewoo te loo xamante ni itteewoo na ko bu dikkee ci mouvement ànd defar Touba mouvement ànd defar Touba da ko ci jàppale li ma ci mooy mouvement ànd defar Touba ni ci gox yëpp bokkee ay gox yëpp ci bokk ndax bu fekkente ne dem na ba bitim réew ñëpp bokk ci war nañoo soññaat bu baax a baax a baax gox bii nga xamante ne bii fii la ñu baree baree baree baree ëpp ci mouvement ànd defar Touba kon nag ñu ngi leen ci soññaat di leen ci xaaraat bu baax a baax a baax mouvement ànd defar Touba nag liggéeyam amul politique amut leneen lu dul liggéeyal Serigne Touba li lu dul liggéeyal Serigne Touba doo leen nu ca seen waxuñu nag nun ngeen seen nu ci leneen ëllëg waaye mouvement bi moom kenn du ko seen ci lu dul liggéeyal Serigne Touba moo tax bi ndigali jibee itam nga ne bi ndi euh, ndigalu Serigne Touba jóg na ñu boole nu ca ci liggéey bii nga xamante ne mooy am chaque la première safar bu nekk di mbalem Touba ñu boole nu ca ñu war caa toggaay añ yóbbu ko comme ni ko kuréel yëpp di defee ñu santaat ci Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax bi loolu amee itam muriti Serigne Touba yi xam rek moo nu ñor ba seen alal bitse bi laaluñu ko te jàpp nag na dañuy desal xaalis buñ noppee te dañoo façon yéene jël ci bitse bi def ci li nga xéewal yi ba ba liggéey bi di jeex waaye fii juróomi fan yi nga xam ne moom la ñuy bale di jeex ndax ren ñett juróomi fan lay doon dañuy bale ñetti fan sëkk ñaari fan loolu fi ne nii bit bi nga xamante ni mouvement And Defar Touba yëgle na daa bëgg a yëngu ci loolu rek la la yi jaayante jaayante ba liy defar juróomi fan yi fi ne lépp mat na ba desal xaalis moom la wax waaye laal bit bi moom xalaatuñ ko kon nañ xam ne liggéey sëñ Touba rek fi ne loolu nag buñu koy def defuñu ko ngir jili bay defuñu ngir Omar Mbaye mbaa sëñ Issa Mbaa kenn waaye ñoom dañ koy def ngir liggéey sëriñ waaye daal na ngeen xam ne bernde yi nga xam ne moom la ñuy def biñ ci waxtaanee itam sëñ Cheikh sëñ Latif ku xam programme la ku mën a def xamu defin la ndax dafa wax ne bu ngeen toogee xéewale ba pare ña fa nekk na ngeen leen jox ñoom ñu xéewlu ba pare yi naan bane yi nga xamante ne bi laalagu leen ko bu ngeen pare ngeen woo ma fa ma nekk ña war a xéewlu da ngeen indil ma ko ñu xéewloo foofa kon da ngeen xam ne lii ñu ngi ci ba juróomi fan nii lañ koy continuer ba gi jeex mboolem foofu taalibu Sëriñ nekk daal fas nañ yéene di leen defal ay bar ak bernde ba magal Tuubaa gi jeex ta dañ ko tambali ni tay waaye fess ñuko yena yéen dakkal ba magal gi jeex ci kàttanu sun borom euh mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci ko jëriñ ji ma ci serigne Cheikh Mbacke monsieur Abdou Latif euh di rafetlu jëf ji ngeen jëf te yalla rek tax ak serigne bi jëmele ko ci taalibe serigne Tuubaa yi nga xamne ñoo xëy tey ci setal barab bi ngir waajale ko bisub Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne wax na ne euh, lépp lu mu am ci la ko amee mhm. te noonu lu am mhm. ci biir am ko Sëriñ lu mu ko amee kon lépp lu waay yëkkati jëmale ko ci waajtaayu bis boobu yi na nga xam ne moog loo yëkkati teg ci loxoom ñooyam sëriñ Seex mii di jóoriñ ji itam sëriñ mun Mountakha tànn ko boole ko Cheikh Amadou Bassir mi nga xam ne moo yore kàddu yoon wi buta ndigal yooyu itam li mu doon ci sëñ Bassirou li mu doon ci Mamor Diarra war naa tax mu sañ a joxe ndigal ci liggéey bi waaye yooyu yëpp nag da koo teg ci suuf jëfandikoo fassiyene don doon seigne touba rek boole ko dara ñun ñepp loolu lañu mom euh kon bu ngeen léegi liggéey bu toll nii tek ko ci loxom jappalé ko ci liggéey bi da leen sante da leen gërëm waye ñaan gi nak moy jitu alhamdullilah ndax daa am loo xam ne ku ko def dañ la wara sante sant daa am loo xam ko def dañ la wara ñaan yalla dimbali la ba mëna sax te seytaane bañ ci am cër yéen seen jëf ji ak seen wax ji ci turu sëriñ bi mm-hmm. dañ leen di ñaanal yàlla mm-hmm. benn gàllankoor bañ ci am ba fa ngeen ko bëgg a àggale mu àgg fa ndax dëkk bi mm-hmm. yitti woo yu bari yooyu yitti woo sëñ Tuubaa am na lépp kon nag képp koo xam ne tànn nga ci benn ci yooyu di ci yëngu war ngaa sant yàlla bu baax. ci bi la sëriñ bi baaxee. ba booleel ñey amal loolee. ndax dëkk bi moom lépp lu sëñ bi tudd rek dana am. kon ku yàlla baaxee maa bokk ñu ko amal. war ngaa sant yàlla bu baax. lii ngeen def ci la bokk. kon ñu ngi leen di ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne naal ngeen ko ci wala ngeen yéene ko ci wala ngeen jëf ko ci. suñ borom defal leen ci lu kawe seen njort barke Sëriñ Tuubaa tam bokk ci jëf yi sëriñ bi nangu ñu ngi leen sëñ bi nee na leen ma sëñ bi nag bëgg na nga ànd ak ñun bokk si ci kon ñu fas ko yéene nag di ko def ay bernde bés bu nekk ñu togg ay bernde indil ko ci kër Sëriñ Tuubaa gi ni nu ko sëñ bi sante ba juróomi fan yi mat ñu ko toogee tey jii nag comme ni mu ko waxee woon indil nañ ko ko ci kër Serigne Touba gi moom sëñ Cheikh moom sëñ Latif ci kër Serigne Touba gi lañ ko ko indil bi ndikkee mu boole nag Serigne Khadim nga xam moo jawrinam sëñ Khadim itam jox jox nañ ko ko nee na Serigne Bassirou sëñ Abdou Khadar dana ko yëg Serigne Mountakha itam dana ko bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ku ko war a jot ku nekk ci ci kër Serigne Touba dana ko jot waaye bi mu ne Serigne Mountakha dana ko jot rek la doy lépp ndax nee na sant na ci Serigne bi sant na ci kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu daal moom moo doon moo nekkoon mbir mi nii nga xamante ne mooy tàmbali bi tey nag noonu lañ fas ko def ba juróomi fan yi jeex ci kàttan sunu bar heure bu xëyee daal ñey nekk ci waar wa dañ nekk ci waar wa ñey nekk ci xéwal di nekk ci xéwale heure bu ñu ko toggee pare indi ko fii ci kër Sëñ Tuubaa jox ko ñi ko yeeyoo sammaytuha mawaahibal xadiimi